mbokk yi alhamdulilah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala mi nga xam ne ci ay mbaaxam wërsëgal nañu ñu nekk ci jamono bu tedd te mooy di dund shahru ramadan loolu itamit mu booleel ñu ci ñu bàyyi suñu kër ñëw dajaloo ci ab néegam di fas yéene jàng ab téeréem ca suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam def ci wax ci loolu ay mbég yu bari te dara taxul woon mu koy def suñu borom yàlla moo ko yónni woon mu nekk bashiran wa nadira daan bégal nit ñi te la ñuy am ca seeni jëf looloo tax da daan wax ci jëf yu bari loo xam ne dana jaral nit ki bu doon dañuy paas mu paas bu doon dañuy fay biye mu fay biye salilahi alhamdu kon li ñuy ñaan rek mooy suñu borom yàlla yàlla nañu yàlla nangul ñu ngi nekkoon it ci suratul maida di saar boo xam ni saar la buy tënk lu bari ca la sunu borom yàlla bëgg ci ñun waxoon nañu leen ca njëlbeen ni mooy saar bi ëpp yaa ayuha allazina amanu su ko defee jullit war koo ittewoo lool ngir xam la nga xam ni mooy diineem suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin képp ko yàlla bëgg ci yow yiw mandarga ba mooy dalay xamal sa diine diine ji duna rek da nga ciy juddu tudd Muhammad wala Fatima bu julli jotee nga jóg julli koor jeex na waaye da nga koo war a gëstu war koo xam li ngi noonu kon incha allah ñi ngi toll ci ay fukki bi ak juróom-ñett muy ay 18 bi ci suñu borom di wax naan wa qalat al yahud wa nasara insha Allah ñu bàyyi ak Cheikh Aline أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءكم بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم سبحانه وتعالى مني وقالت اليهود والنصارى دني وخ يهودية أك نصرانية مي كريتشينية نحن أبناء الله وأحباؤه ñun day ñooy doomi yàlla ñun ñooy soppe yàlla qul fa lima yuazibukum bi zunubikum neel moom moom lu tax yàlla di leen mbugal ci seeni bàkkaar bal antum basharum mimman xalaq déedéet nekkuleen lu dul nit ñu bokk ca ñam bind yaxfiru liman yasha mooy jéggal ku mu soob ci ay jaamam wa yuazibu man yasha di mbugal ku mu soob ci ay jaamam walillahi mulku samawati wal ard yàlla nag mooy ñeel na ko moomeelug asamaani ak suuf wa ma baynahuma ak lépp lu nekk ci diggante bi wa ilayhi almasir ci yàlla la lépp di mujj yaa ahlal kitaab ey yéen ñi nga xam ni da ngeen a jotoon téere juif chrétien qad jaakum rasuluna dikkal na leen suñu yonente day yubayinu lakum ala fatratin min rusul mu leen di leeral ci kaw dog goo xam ne dogoon na ko yonente ya an taqulu ma jaana min bashirin wala nazir ngir ngeen di bañ a wax ñun day dikkaluñu kenn ku ñuy bégal wala kenn ku ñuy xub faqad jaakum bashirun wa nazir dikkal na leen aji bégalaate kat bi kuy bégale ak kuy xuppaate wallahu ala kulli shay'in qadir yàlla day bépp mbir mooy ka nga xam ne moo ci am kattan mi ngi noonu mbokk gis nañu ni shaytaan bi nga xamee ne nii suñu boroom bind nay jaamam ngir ñu jaamu ko mu dégg leen ca aljanna tëkku leen it ci ne bu ñu ko jaamuwul da leen di yóbbu sawara bokk na rôle bu rëy bu seytaane di jëfe ci doomu yàlla yi subhanallah ci jaami yàlla yi mooy dalal seen xel ci ni yàlla subhanahu wa taala du leen mbugal ca képp koo xam ne sa tawxid leerul sa sunna dëgërul ci ñooñu nga bokk mi ngi noonu loolu moo tax mu gëmloo woon yahuud yi ak nasaraan yi ci ne yahuud ak nasaraan moom àjjana lañ jëm ñu ne ñun ay doomi yàlla lañu ay yàlla dañoo sopp ni mu soppee doomam doonte ni jàpp ñoon yàlla da leen a jur kiñ jàppoon yàlla moo ko jur bu dee yahuud ya dañ ne Uzayr moom yàllaa ko jur chrétien yi na masihit masih ibnu maryam yàlla ko jur amma ñoom nag dañ ne yàlla da leen a doomoo ci li ngay dégg rek cee diw di kooku sama doom la wala kii sama càmmiñ la wala kii sama nangam la fekk ne sax xëy na bokku leen dara waaye itte ba nga ko jox moo tax ngay wax ñu ne ñu nit ñun ñooy soppe yàlla kon yàlla subhanahu wa taala nekkul koo xam ne dañuy mbugal alaxira suñu borom ne leen waaw su ngeen amee garantie ba ni yàlla doomoo na leen yàlla sopp na leen lu tax nag yàlla subhanahu wa taala di leen mbugal ci bàkkaar yi ngeen di def ca mbokk da ngay gis ne boo xoolee histoire nga xool histoire juif yi histoire christianisme li ñu daj ci àdduna kenn mënu la ko wax benn lu leen seeni noon teg wala reyante bu ñu reyante seen biir ñi nga xam ne ñooy yahudi bokk na ci ñoom lu ñuy wax mooy plus jamais ça sunu maam yi li ñuy dund duñ ko dundati mukk durant l'histoire suñu borom yàlla waxoon ne ne yàlla dogu ne ne ba baa àddunay tukki wa istaazana rabbuk la yabaasanna alayhim ila yawmi alqiyama man yasumuhum suu al azab ba baa àddunay tukki yàlla du deñ di yónne yahud yi koy teg ci ñoom bëggal yu tar liñ ci tombeel ñun suñu jamono mooy jamono Hitler nga xam ne matagul siècle la deuxième guerre mondiale bi jeex en 1945 Hitler boobu dañ naan rey na ci lu jege juróom benn million ci ay yahut te bu ñu naan 6 millions de personnes en 1945 looloo ëpp li ñuy tuddee tey soixante millions de personnes loo xam ne nii Hitler rey na ko ci ñoom noonu it la amee ci lu bëree bëri première guerre mondiale deuxième guerre mondiale et d'autres guerres yépp mi ngi amoon entre yahudi ci biir yahudi ak nasaraan yi xanaa kay ñoom ñoo ci yóbbaale doomu aadama yeneen yi sunu borom ne waa lu tax mu leen di bëggal ci seeni bakkaar na am waaye mbokk it léeg-léeg nga gis ñun it ñu jàpp ne ci li ñuy féetewoo yàlla ñun la faral yàlla réew mi jàmm fi am yàlla kaza wa kaza lu tax yàlla di fi indee catastrophe lu tax lu tax tey ñu ne Sénégal masalan dëkku jàmm la mag ñu baax ñi fi nekk yàlla du ñu seetaan kaza mag ñu baax ñoon ñuy wax ñëpp première guerre mondiale fekk ni ñu ngi dund sunu réew mi bokk ci sunu maam yu bëri ñu takk leen yóbbu leen ñu guerre yi avant loolu trois siècles yu tegaloo ñi ngi yeew sunu maam di leen yóbbu ñu nekk ay jaam pourtant ñooñu ñu ngi fi woon ñaareel bi mooy catastrophe yi nga xam ne mooy am bokk na ci loo xam ne nii ngalawaay ndaw ñu leen ko fàtte catastrophe bi gën a rëy bu mas a am ci planète terre ba mu jeex yàlla tànn Sénégal def ko fi muy bato Joola bato Joola amul ci àdduna amul ci àdduna lu jege mille huit cent personnes bal ñoom nee nañ mille huit cent quelque la xëy na jege na deux mille personnes suuxandoo ci benn gaal Sénégal la mas a am kon bu ñu toogee naan mag ñu baax ñeeg mag ñu nangam loolu dañuy nax suñu bopp mbokk jullit mag bu baaxee boppam la baaxal yahudi yi li tax ñu doon wax ni yàlla dafa tànn ci ñoom maami yonent yu dul jeex ñu jàpp ne kon noonee yàlla tànn seeni maam yonent ñoom it ca la ñu bokk yàlla du leen mbugal ay soppe yàlla lañu waaye mbokk loolu erreur la borom boobu nag ne déedéet yàlla day jàpp leen lu dul ay nit rek ngeen ñoo xam ne moo leen bind ca mbokk yàlla moo bind kum mën a doon que ca jëkk mooy suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam bindaafun yàlla la yàlla moo mën ak ay jaamam ku ko ca neex mbugal la ku ko ca neex jéggal la na am yonent yàlla nuux ma nga nele woote junni at suñu boroom jël jabaram ak doomam mbugal leen ci sawara firaw naa nga ne gënoon a mbëru ci li yàlla wàcc ci kaw suuf yàlla dem ba ca këram dem ba ca lalam jël soxnaam dugal ci yërmandeem kon mooy def lu ko neex doonte ne lu muy defit ci xikma la koy def amul ku yàlla di jubal lu dul am na sabab bu mu jaara la ci yow bu jar yàlla jubal la amul ku yàlla di mbugal rek parce que dalaa da ko neex rek mu jël la mbugal la déedéet fokk mu am sabab bu jóge ci yow boo xam ne ku yeyoo mbugal nga mu doog laa mbugal borom boobu nag subhanahu wa taala ne xam leen ne ñi nekk ci kaw asamaan yi di malaaka yi ñi nekk ci kaw suuf ak lépp loo xam ne nekk na ci déggante bi moomee lu ko yàlla la ay jaami yàlla lañu kenn di ci doomu yàlla jalla waala borom boobu it ne lépp lu nekk ci asamaan yi ak suuf gis dana mës a ñëw ñu delluwaat taxawaat ci kanamu borom bi jalla waala suñu boroom woo leen ñoom ahlul kitaab ay yéen yahud yi ak nasaraan yi dikkal na leen ab yonent bu leen di leeralal la seen maam yi lëntaloon ci seen diine ji gannaaw bi yàlla toogee diir bu yàgg génnewul yonent suñu boroom subhanahu wa taala mbokk daf doon tegale ay yonentam nee na wa in min ummatin illa xala fiha nazir amul benn xeet lu dul yonent yi dikkal na leen noonu la waxe it summa arsalna rusulana tatra nii laa joxe sama yonent ñu tegaloo yonent bu faatu beneen ñëw beneen fa bu faatu beneen ñëw bal léeg-léeg sax mu dajale leen nga xam ne yonent yàlla zakariya yonent yàlla yaxya yonent yàlla isa ñoom ñëpp presque ñoo bokk jamono léegi-léeg mu boole leen da ngay gis na yonent yàlla Muusa ak yonent yàlla Haarun ñoom ñoo ña nga xamee ni nii ñoo ànd benn benn yonent Ibrahim yonent la doomam Ismaïl yonent la Ishaq yonent la naka noonu ki nga xam ne mooy Yanquba yonent la ñeenti yonent yépp daje nañ ci kaw suuf moo tax Ibrahima ba ko yàlla di bégal na ko basharnaahu bi Ishaq wa min waraai Ishaq Yanqub naam yusufa yonente la mais fekk ne ibrahima faatu waaye ñeent yëpp daje nañu amma nag suñu borom toog ba mu neex ko bi mu yónnee isa ibn maryam mu tëj ak yonentam bàyyi jamono bi ba ñu dund lu jege six siècle lu jege juróom benn téeméeri at mu doog a yónni nag yonente boo xam ni day jël ñaari taxawaay yu yonent yu jëkk yi amul woon taxawaay bu jëkk bi mooy moom yàlla da ko yónni ci mboolemi mbindaa fanam yu nekk ci kaw suuf nit ak jinne te yonent yi ko jiitu woon yëpp dañ leen doon yónni ci ay xeet ay gox yu limité amma moom it yàlla yónni ko encore ba ila yawmi diin yonent dootul amati gannaawam kooku nag la borom bi subhanahu wa taala ni moo ñëwoon nekk kuy bégal jaam yi ci lii de bu ngeen ko defee am jàmmi àdduna am jàmmi àllaaxira waaye du xupp jaam yi ci loo xam ne buñ ko defee dañ am xat-xati àdduna ca ku dee dem safara borom boobu nag ne lii de def naa ko ngiree kenn du ñëw yomal qiyaama naan yàlla man dama daje wula ku ma ma sawaar xam leen ne suñu borom yàlla mooy ki am kattan ci lépp loo xam ne lu mu mën a doon la mi ngi noonu jalla wa ala
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين barakallahu fiik suñu borom mu ni wa id qaala muusa li qawmi fàttalikul keroog ba muusa di wax ak xeetam yaa qawmi zkuru nicmatallahi alaykum ay waay saw xeet fàttaliku leen xéewalu yàlla ci yéen is jaala fiikum ambiyaa ba muy def ci yéen ay yonent wa jaalakum muluuka mu def leen ngeen nekk ay buur wa aataakum ma lam yu'ti ahadan min alaalamin mu jox leen loo xam ne joxu ko kenn ci ay mbindaa fanam yaa qawmi duxulul ard al muqaddasa ay yéen saw xeet dugg leen suuf si nga xam ne nii dañ koo sellal allati kataba allahu lakum suuf boobu nga xam ne yàlla bind na ko ñeel leen wala tartaddu ala adbaarikum ngalla way bu leen nekk di dëpp ci seen gannaaw fa tanqalibu xaasiriin kon day da ngeen wëlbatiku doon ñu perte qaalu ya muusa ñu ne ko hey muusa inna fiha qawman jabbaarin dafa nekk ci dëkk bii day xeet boo xam ni ñu mbëru lañu mi ngi noonu bëri kàttan wa inna lan nadxulaha xatta yaxruju minha ñun nag duñ fi dugg mukk lu dul xeet bii dañu fay génn fa in yaxruju minha fa inna daaxiloon heure bu ñu génnee nag ñun daañ mën a duggoo daañ nekk ñuy duggoo qaala rajulaani min alladina yaxaafuun noonu la waxee ñaari góor ca ña bokkoon ca ña ragal yàlla an'ama allahu alayhima yàlla xéewale ci ñoom ñoom day ñoo jóg ne udxulu alayhimul baab dugg leen ci ñoom ngeen jaare ci bunt ba fa ida daxaltumuuhu heure bu ngeen duggee ci dëkk bi fa innakum ghalibun yéenay ña nga xam ne yéen a not wa ala allahi fa tawakkalu ci ci yàlla rek ngeen war a wékku in kuntum mu'minin dem nekk ngeen ñoo xam ne da ngeen a gëm mi ngi noonu mbokk gis nañu suñu boroom subhanahu wa taala bi mu génnee yahud yi ca Égypte dogal ñu traversé la nga xam ne mooy géej gi suñu borom yàlla mi ngi leen bàyyi woon ci li ñuy tuddee désertu Sinaï léegi nag borom bi wax yonent yàlla Muusa ne ko li nga xam ne mooy Shaam mooy suuf bi nga xam ne yàlla da ko sellal laabal ko loolu moom lañ naan moom la ñu tuddee Shaam donte histoire dem na tey ba daggate ko mooy Syrie la nga xam ne mooy Palestine la nga xam ne mooy Jordanie loolu ñu tuddee ay Golan yu yëpp da ngay gis ni moo nekkoon la ñuy tuddee Shaam léegi sunu borom na ko waxal sa xeet ñu dem am na ñu fi nekk nañu jihaat ak ñoom génne leen ca ñoom suuf bi dana nekk seen suuf ah Moussa dajale bani Israël avant muy dajale bani Israël mu fàtt bi mu leen dajalee mu fàttali leen xéewal yàlla ci ñoom ay yéen bani Israël fàttali ko leen xéewal gi leen yàlla defal mooy yàlla tànn na depuis sunu maam Yaquba ba tey mboolem ku muy yónni ci ñun la génne loolu di xéewal gu rëy ñaareel ba yàlla natt woon na leen ngeen nekk ay jaam ñu teg yéen mbugal yu tar tey nag yàlla def na leen ngeen doon ay boor moom seen bopp amu leen benn coono ci li ngeen di lekk nga xam ngeen suñu borom bi mu leen bàyyee foofu mi ngi doon wàcce ci ñoom almann wa salwa lii di picc ya ak naan yi ñu doon naan amuñu benn problème ndox maa ngi nii di baawaan comme na ngeen ko xamee ba Moussa duree yat bi ndox yi tasaaroo borom bi subhanahu wa taala Moussa ne yàlla defal na leen lu musul defal kenn ci ay mbindaafon ya leen jiitu kenn ci mbindaafon ya leen jiitu moo tax mu ne maalam waxul maalan mooy te leen jiitu kenn mus ci am li ngeen am loolu di xiiwal gu leen Moussa fàttali avant muy wax ak ñoom lam leen bëgg a dikk lam leen bëgg a sant waaye mbokk jullit Moussa buy wax xiiwal yi ñun buñ koy jàng dañoo war a ruus mbokk xam leen ne ñu ngi dund xiiwal yoo xam ne waxuma suñuy maam amuñu ko woon waaye suñu maam amuñu woon sax dixième ba wala centième ba mu ndax bu ñu doon départ tey fii ñu toog yonent bi ak sahabaam ci suuf lañ daan toog am déet siggi leen xool bu tàngee ñu taal ventilateur yi ndax yonent bi ak sahabaam amoon nañ ko déedéet xooleen lamp yi ñu wër ndax yonent bi ak sahabaam amoon nañ ko déedéet dañ naan la yonent bi alayhi salaam da daan julli fajar jàng lu jege juróom benn fukki aaya waaye bu sulmali ngay doog a xam ki nga susal ila axiri dem leen kër ga xoolal la nga fay fekk ci robinet kër gu ne yàlla wërsëgal ko robinet lu dul jamono ji fitne bi am ci wàllu sones bi yàlla na yàlla teggi ko ci jàmm waaye almuhim mbokk da ngay gis ne xatta sunu maam yi wala xatta am nañu ko yàlla nattoo ba tey waxuma dëkk bi yépp ñooy bokk teen mais ay dëkk ñooy bokk teen tey jii yàlla wërsëgal maam yi lu ñu daan war ay fas ki xar tey xoolal oto ngay dugg foo mën a jëm boo amul oto it fay ñaar fukk mën a dugg oto mu yóbbu la fa la neex xoolal li nga xam ne suñu borom yàlla defal nañu ko suñu maam yi pour ñu mësan togg lu ñuy def dem ci àll ba taxani tey jii ku nekk am nga gaz sa kër boo yeewoon seen kër du matin rek da ngay koset rek daal di taal tàngal la nga bëgg a tàngal loolu nga gis moom la ñuy nekk kenn xamul siècle bi ñuy dund ñaata xéewal lañu suñu borom fekkee ci loo xam ne suñu maam yi waxuma amuñu ko woon mais mënuñu ko woon imaginer bokk na ci xéewal gu gën a rëy mbokk mooy portable yi nga xam ne tey jii Amérique ak Canada ak Russie ak yépp ñoo bokk benn kër bu ñu dëkk léegi sa doom fu mu mën a nekk ci kaw suuf soo ko soxlaa woo ko bal man nga sax xool waxanteeg moom nga koy jàkkaarloo mu lay jàkkaarloo kon yooyu ay xéewal la xéewal yooyu nag lan la doon jëriñ ci doomu aadama bi mooy nga doon kuy sant yàlla ba yàlla moomu nga xam ne moo la ko defal moom du lekk du naan du solu soxlawul xaalis boo koy jox lan nga ko yoral mooy ndigal yim naan la def ko ci lépp sa intérêt la nga góorgóorlu dara du la ko tee def lim naan la bako ci sa intérêt la nga góorgóorlu dara du la ko tax a def loolu rek la ñu yoral suñu borom subhanahu wa taala wa taala moo tax mu ne laallakum tashkurun léegi nag Moussa fàttali ni leen yéen xéewali yàlla mu ne leen nag ay yéen Moussa ay yéen saw xeet jóg leen ngeen dugg ci fi nga xam ne mooy Cham di dëkk bi nga xam ne yàlla da ko laabal sunu borom bind na ko ñeel leen ca boobee la ko waraloon mooy ñoom ñooy ay jullit yi nekk ci kaw suuf waaye mbokk yàlla suufam si kan la koy jagleel mooy ñëkk a gëm waaye jagleelu ko aw xeet jagleelu ko aw sant jamono jooju bani israil rek ñoo yoroon diine bu sell ci kaw suuf waaye suñu borom nee na wa laqad katabna fi zaburi min baadi zikr anna al arda yarisuha ibadiya salihin salihun mooy jaam yu baax yi la yàlla jagleel place yu baax yi looloo tax màkkaa nga neli ndax arab yee ko moom déedéet bu sa ndey doon arab sa bàyyi doon arab ñi ñëw màkk fekk doo julit dañ lay dàq ci àll ba am déet ngay américain ngay russe ngay lu mën a doon laa ilaha illa muhammad rasulullah màkk nga bokk yaa ko moom loolu moom lay mbir bi waaye firiwul mukk li suñu borom naan suuf bi leen yàlla bindal ñoom nañ ko gëmee ñoom ca seen diine mooy israil ak Sham googu ma lay wax dem ba Irak dem ba Arabie Saoudite loolu lépp seen dëkku maam la loolu ñoom la ko yàlla jagleel waaye abadan jagleelu leen ko en tant que yahud mi ngi leen ko jagleeloon en tant que ñu gëm ba tey it yahud bu gëmoon dugg ci lislaam da nga bokk ci ñu yeewoo gox boobee mu ne leen nag bu leen bañ dellu gannaaw ci mooy yàlla kon de perta nga dana leen dal bi loolu amee seen kilifa yi jóg ne ko Moussa ñun kat yónni nañ ay ndaw ca dëkk ba waaye nañ fa fekk xeet lañ boo xam ne rëyaay gi ñu rëy ak ponkalaay gi ñu ponkal xalaatu ñu dem di xeex ak ñoom jabbaar mooy koo xam ne dafa mbëru ba koo dajal man koo noot nit meloo ko melokaan bu bon la doomu aadama du noot ay moroomam melokaan la ci melokaanu borom bi subhanahu wa taala mi nga noonu malikul quddusul azizul jabbaar mooy que not ñëpp jaamam Moussa ñee daal rëyaay gi ñu rëy xalaatuñu dem di xeex ak ñoom léegi xanaa daal nga def ay pexe boo defee pexe bañ génn foofu ñun daañ mën a ànd ak yow dugg ci biir dëkk bi gis ngeen ah bi loolu amee Moussa alayhi salaam am na ñaar ci xeetam ñoo xam ne jóg nañu suñu borom nee na ñoom dañoo bokkoon ca ña ragal yàlla yàlla it baaxee leen ca mbokk ragal yàlla yàllaa koy baaxe ay jaamam yàlla na yàlla baaxe ñu ko ñooñu ñu jóg waar seen xeet yéen ngi fàttaliku lu jiitu loolu te Moussa ñëwee wax ak Firawna Firawna yi ak i notable am yépp contre ko jóg taxaw contre moom suñu borom lu mu waxoon qaala rajulun min ali firawn yaktumu imanuhu yaa qawmi yaa qawmi yaa qawm ca la yàlla génne benn góor boo xam ni moom ku am xel la mu gëm Moussa waar xeetam fii tamit ban Israël ñuy saay saay saay saay yàlla génne na ci ñaari góor yoo xam ne jóg nañu wax ak seen xeet ay yéen seen suñu xeet jóg leen ñu dem dugg ci dëkk bi ñu jaar ci bunt bi xeex ak ñoom su ngeen fa duggee rek not leen lu tax dañuy wékku ndax ñun ci yàlla lañ wékku ci yàlla ñu rékk bu jë dañoo gëm yàlla ñu sant ñu jihaat yàlla ñu jox ndigal lañ dugg yàlla nee na suuf ñun lu ko bindal même bu doon tane ne ñee dañoo ëpp mille fois yëpp suñ demee xeex ak ñoom yàlla danañu dimbali seen kaw ca mbokk mi ngi noonu yàlla képp ko dogu ci moom da ngay gis dañ la dimbali bokk na it ci li ci borom xam-xam yi di wax mooy doomu aadama lépp loo gis mu lay jëriñ jógal dugg commencé rek bépp projet lu mu mën a doon ay kër laag ay société laag ay lu mën a doon jógal rek duggal commencé yàlla subhanahu wa taala mooy yeggale moo tax waa ji na leen udxulu alayhil baab fa iza daxaltumuhu fa innakum ghalibun su ngeen dugalee rek not not not mbir mi lii kon ñoom la ñaar ñu baax ñooñee wax waaye nag ñan ñooy bani israil mi nga noonu Cheikh Ali قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال إن قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيمون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين barakallahu fiik suñu borom mu ni qaalu ya muusa inna lan nadxulaha abada ay muusa dëkk bi duñ fi dugg ba faw maa daamu fiiha fii ak fonkol yooyu ña nga fa fazhab anta war wa rabbuka demal ànd ak sa borom yow nga xeex fa qaatila ngeen xeex inna haahuna qaaiduun ñun ñi ngi toog fii di xaar ñi ngi nekk fi toog fii qaala rabbi inni laa amliku illa nafsi wa axi Muusaa ne ay sama boroom man day moomu ma lu dul la nga xam ne mooy sama frère sama bakkan bi ak sama doomu ndey jii di Haaruun fafruq baynana wa bayna alqawmi alfasiqin yal na nga teqalee suñu diggante ak diggante xeetu kàccoor bi ñu génn topp gi qaala fa innaha muharramatun alayhim arbaina sana yàlla mu ni ñoom day danaa ko araamal ci ñoom duñ fi mën a dugg ñeen fukki at yatihuuna fil ard daan ñekk di gëlëm ci biir suuf ay réer ci biir suuf fala tasa ala alqawmi alfasiqin du am nag génnu tiisu ci kaw xeet boo xam ni dañoo noon ñu génn topp bokk bani israil yahud yooyu nga xam ni mboolem lu yàlla bind ñoo ci gën a dëgër bopp suñu borom melal leen ne ñooy almaghdubi alayhim mooy mer dafa wàcc ci ñoom yàlla mere na leen ak i malaakaam ak képp ku baax ñun bi Muusaa waxee lii wax leen fi yàlla jaaraf ñoom ci ay xéewal yépp wax leen kattanug yàlla yépp wax leen kaay leen dugg nag ñu dem jihaad ñu ne ko hey Moussa dëkk bii daal xalaatuñu mukk jóg dem naan dañuy jihaad foofu abadan yow koy jàpp nga ne boo demee gañe damal ànd ak yàlla nga dem jihaad yi foofu waaw ñun ñu ngi toog fi di la xaar gis ngeen lii mbokk mu safaanoo ña yàlla tànnaloon suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam muy sahabatul kiram lu jiitu gis ngeen yahudi bon yi xoolal page bi nga passé yépp ak page yi fu ñuy wax ak Moussa luñ koy wax yaa Moussa duñ ko wax mukk yaa rasulallah moo ko sahabatul kiram kenn ci ñoom xalaatul woon di wax naan yaa Muhammad abadan looloo taxit ci ay teggin ba tey jullit du nettali waxi yonent bi naan Muhammad nee na déedéet da nga naan qaala rasulullah mi ngi noonu qaala nabiyullah loolu la ngay wax mais ñii gis nga yaa Moussa Moussa kon ñun duñ fi dëgg ñu ngi toog fi daal di xaar soo demee nag jihaad ba dàq leen daañ ñëw waaye bu ñu xoolee keroog xare Badr keroog xare Badr suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam bi muy génne Makka Badr yëkkatiwu ko woon naam lan moo ko yëkkati woon dajeeg caravane muy njëgg ba Abu Sufyaan yoroon yàlla dogal njëgg ba daw avertir waa Makka waa Makka yëkkati armée junni nit te yonent bi mi ngi yoroon à peine ñetti téeméer léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajale sahabatul kiram ne leen nu ñuy def dañuy dawam dañuy toog xaar leen ay yéen nit ñi xalaat leen lu ñuy def bi loolu amee Abubakar Siddiq jóg na ko ñun ñi ngi sa digal loo digal loolu la ñuy def yonent bi alei salaam na waaw mbooloo mi lu ngeen xalaat bi mu ko waxee kii di Saad ibnu Ubaada bokkoon ci kilifa ansaar da ko waaw yow mi yàlla yoon dafa mel ne ñun waa ansaar moo tax ngay laaj mu ne waaw ca booba yonent bi dafa siñente woon ak yéen ak ñoom su ma ñëwee madina da ngeen ma aar ni ngeen di aare seeni njaboot tey nag nekkuñu madina génn nañu ca ñii di ñëw mat nañ leen ñetti yoon mu ne ko xëy yow mi yàlla yoon ni ñun ñoo jaayante woon ak yow ca jaayante yooyu duñ ci dellu gannaaw mukk maa ngi lay ñi ngi lay seedeel ne bu la neexoon ne suba suba ñu dem attaqué ji noon yi maa ngi lay seedeel ne suñ jógoon nga ne nañ dem géej nga ne sóobu leen ci géej ñun waa ansaar ñépp daañ sóobu kenn du des gannaaw bi loolu amee yonent bi alayhi salaam daal di bég daal di ne bég leen yàlla danañu dimbali ci ñoom gis ngeen kon loolu mooy safaan diggante sahabatul kiram ak yahudi bon yi sahaaba yi seen mbir moo nekkoon sami'na wa ata'na dégg nañu topp nañu loolu it yow mi nga xam ne yaa leen di roy it nga la waay sa melokaan ci diine ne nekk loolu bi lii amee nag Moussa alayhi salaam mer nga xam ngeen yonent yàlla yi moo ci gënoon a tàng nga noonu moo ci gënoon a tàng Moussa daal di mer daal di jóg ne ay yàlla benn responsabilité la am rek muy sama bakkan ak sama doomu day Haroun mi ngi noonu Moussa ak Haroun ñoo bokk ndey ak baay sama bakkan la ab ak Haroun laa mën a garanti mais xeetu bani Israël bii seeni mbir moom man xamatuma ci dara léegi daal yàlla teqaleel suñu diggante ak ñoom teqaleel suñu diggante ak ñoom suñu borom na ko ah baax na kon day danaa leen nattu natt ba mooy suñu borom yàlla ne dana araamal ci ñoom duñu mën a yegg ci suuf bi nga xam ne seen teddaanga dana fa nekk ñeen fukki fan ñeen fukki at yoo xam ne dañ ko nekk di wër ci biir désert bi suñu borom yàlla mi nga xam ne ci kàttanam moo tëjoon asxaabul kahfi ci benn grotte ci benn montagne ñetti téeméeri at yoo xam ne kenn gisu leen yàlla aar leen foofu naka noonu itamit suñu borom yàlla subhanahu wa taala gis nañu ne noonu la tëjee bani israil ci biir désert bi ñu nekk ci désert bi képp ku xëy bëgg ne am na foo jëm ci pour xool dëkk boo jëm heure boo xëyee di dox di dox ba ne lacc ba sonn boo nelawee rek boo yeewoo fa nga jóge biig nga yeewoo yaa ngi dégg loolee ñu nekk fa donte ne suñu borom nag mi ngi leen fay wàcceel lii di almanu wa salwa ñu nekk fa nekk fa un an deux ans trois ba ba quarante ans ci biir quarante ans yi ci la Moussa alayhi salaam faatu ca la Haaruna faatu ca la mag ñe presque faatu ndaw ña nga xam ne ñoo juddoo foofu ca ñoom it nekkuñu woon ñu bokkoon ca ñoom mbeg maam ya ñoom nag la yàlla subhanahu wa taala def seen xol tawfiq mu am kenn ku ñu wax Yusha ibn Nun kooku moo ànd ak ñoom xeex ba ubbi la nga xam ne mooy Sham di Palestine ak Syrie la ko wër mi ngi noonu donte ne suñu borom newoon na leen bis bu ngeen di ubbi dëkk bi ku dugg na sujud sant yàlla ñaan yàlla jéggal ko mooy xitta gis nañ bani Israël lañ def safaanoon nag loolu ca mooy li ngeen jàng suratul baqara almuhim mbokk ñu gis ne yàlla subhanahu wa taala kattan gi mu am ci ay jaamam quarante ans ñu nekk ci benn désert kenn munte génn waaye jàpp naa ne ñu bari ci mag ñi fi toog xam nañ luy ngëlëm di xam ngeen luy ngëlëm di xoolal doomu aadama nga xool gox bi ngeen miin jaar fa cinquante ans xëy rek nga jaar fa rek yàlla gëlëmal la mbir yépp soppeeku am déet gis nga waa ji gëlëm boo ko ne woon akapes nga ne ko akapes fii la nekk danaan waa kii daf ma bëgg a sànq naam ndax pour moom mbir yaa ngi féete ne le mooy léppay wëlbatiku et puis buy deñ day toog rek mu deñ mel na ko doon nelaw yeewu loolu kon muy wane ne yàlla moo am kattan total ci la nga xam ne mooy ay jaamam yàlla nañu boole ci ñim gindi àdduna ak alaxira naam
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجلت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين
barakallahu fiik suñu borom mu ne watlu alayhim yow yonent bi jàngal ci ñoom naba abnay aadama bilxaq xabaaru ñaari doomu aadama ya ci dëgg id qarraba qurbaana ba ñu nekkee di génne la nga xam ne mooy lu leen di jegeel seen boroom ay ku ne génne ci ab sarax fa tuqabbila min ahadihima ñu nangu ñeel kenn ca ñoom walam yutaqabbal min al axar ca nangu lu ñu ka nga xam ne moo ca des kookee qaala la aqtulannag mu wax doomi ndeyam ja ne ko dinaa la rey qaala innama yataqabbalu llahu min almuttaqin mu ne ko ah yàlla day dana nangul ñeel ña nga xam ne dañoo ragal yàlla la in basabta ilayya yadaka li taqtuluni bu doon dangaa tàllal sa loxo jëme ci man ngir rey ma day ma ana bi baasitin yadiya ilayka li aqtulak man day duma nekk mukk di tàllal sama loxo jëme ci yow ngir jublu rey la inni axaafu allaha rabbal alamin ndax man day dama ragal yàlla mi borom bindaa fan yépp inni uridu an tabu abi ismi wa ismik man day maa ngi bëgg ci ngay delloog sama bàkkaar bi nga xam ne moom nga ma reye wa ismik mi ngi noonu ak bàkkaar ba nga xam ne nekkoon nga ca jiitu loolu fa takuna min ashabi naar su ko defee nga bokk ci ñoñi sawara wa zalika jazaa'u zalimin ca lool day mooy payu ña nga xam ne ñooy toñkat yi fa tawwa'at lahu nafsuhu noonu la ko coobareloo bakkanam ba taaralal ko ko lii di rey qatala axihi rey frère am ba fa qatalahu mu daal di jóg daal di koy rey fa asbaha min alxaasirin noonu la bokkee ca ña nga xam ne dañoo perte fa baasa allahu guraaban yabaasu fi lxar fi l ard yàlla daal di yónni benn baaxoñ buy gëstu ci kaw ci biir suuf li yuriyahu kayfa yuwaari sawata axi ngiree won ko naka lay muure la nga xam ne mooy awray doomu ndeyam ba mu rey qaala yaa waylata mu ne ay waay alkaa nga ñeel na ma a ajastu an akuna misla hada alguraab ama ndax danaa lott ci mel ni bile baaxoñ fa uwaariya sawata axi ma daa di suturaal muur la nga xam ni mooy sama awray frère bi fa asbaha min annadimin noonu la xëye bokk ca ña nga xam ne dañuy rëccu ñi ngi noonu mbokk suñu borom yàlla bokk na ci lim nattoo ay jaamam la nga xam ne mooy lu baax ak lu bon noonu la wàcceel doomu aadama yi sunu bay aadama ba muy ñëw yàlla boole woon ne ko ak sharia sharia bu araamal ci moom la soob yàlla bokkoon na ca loolu mooy sharia rey nit loolu bokkoon na lu xaraam ca aadama bokkoon na it ca lu yàlla dogaloon ci aadama alayhi salaam mooy bi mu ñëwee kaw suuf moog soxnaam sa Hawa par ñaar rek lañ doon jur par ñaar rek lañ doon jur muy góor ak jigéen léegi nag suñu boroom lan la yoonaloon ci sharia aadama mooy ñaar ñi bokk judd moom araam nañu sëy seen diggante su ko defee ku góor ci ëmb bu njëkk bi mooy sëye ku jigéen ëmb ñaareel bi bu ko defee ku góor ëmb ñaareel bi sëye ku jigéen ëmb bu njëkk bi bokk na loo xam ne nii mufassiruna yi wax nañ ko ñu ne aadama amul ñaari doom kenn ki tuddoon haabil kii tudd qaabil ah léegi nag ki nga xam ne mooy qaabil moo jëkk a judd yàlla boole ko ak seexam seex bi doon ko taaru lool gannaaw ba haabil judd moom it ànd ak soxnaam biñ demee ba war a jël soxna doomu ki nga xam ne mooy seexandoo qaabil di jigéen haabil rakkam ji moo ko war a takk moom seexu haabil la war a takk waaye mu ne ko déedéet man sama seex laay jël qaabil na ko man sama seex laay jël mu ne ko déet loolu dafa xaraam li nga def dafa xaraam mu ne ko xaraam lan mu ne ko dafa xaraam te pour woñe ne dafa xaraam nañu xool ba xam maag yow ku ci nekk ci dëgg bokkoon na jamono aadama alayhi salaam ba ay yenent yu bëri it yàlla doon na yoonal lool ci ñoom mooy ñu génne sarax ki yàlla gërëm ci ay jaamam safara day jege ko asamaan jël saraxam taal ko ko defee ñu ne xam ni kii yàlla nangul na ko waaye képp ku yàlla jëlu saraxam day wane kii àndul ak ngërëmal yàlla moo tax yahud yi bon yo doon wax suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam inna lan nu'mina li rasulin illa ya'tina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar duñu gëmal benn rasul lu dul dañuy indi loo xam ne dana ko teg safara jóge ko asamaan lakk ko ñu doog a xam kii waaye yàlla la bi loolu amee bokk na lu mufassirun yi wax wallahu aalam ñu ne ki nga xam ne mooy qaabil moom baykat la woon mu dem ca tool ba tànn dugub yi gën a ñàkk solo dajale ko indi waaye hëbil moom dem ci géttam moom da daan sàmm mu dem jël kuy bi fa gën a rëy indi teg bi loolu amee rek safara jóge ko asamaan jël xaru hëbil bi bàyyi fa la nga xam ne moom la qaabil yoroon bi lii amee rek qaabil daal di gën a mer daal di na ko yow moom dinaa la rey te ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoom dong ci kaw suuf dinaa la rey gis ngeen ah bi mu ne ko dinaa la rey rakk ji daal di koy yedd na ko ah diw xamal ne yàlla ñii ragal yàlla ñoom la yàlla di nangul te boo ma reyee kon rey nga jullit boo xam ne nii jullit bu ragal yàlla la am déet ndax yaa ngi gis yàlla nangul na ma loolu muy benn ñaareel bi itamit mooy loolu man ka tey ñaax pour moom kay mu wëlbati ko ragal yàlla ngir yàlla nangul ko ñaareel bi mu ne ko dey soo jógee jël jóg jëm ci man pour rey ma man de duma jóg mukk jëm ci yow pour rey la ndax man ragal naa yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindaa fan yi naam ndax mbokk ku rey nit xamal ne moomeelug yàlla la rey borom portable bi ku ñëwoon jël portable am dóor ci suuf rajaxa ko ah foog ñi am problème seen diggante yàlla subhanahu wa taala yi jaamam moo ko bind màggal ko ba mu fu ko neex kon ku ko rey am ak moom problème bala nga ko rey day fekk yaa ngi ko rey ci dëgg mais ku ko reyul ci dëgg am nga moom problème moo tax mu ne ko man day ragal naa yàlla borom bindaa fan bi ci jóg di jublu di la rey mais loolu ndax dana dàq li ñuy tuddee légitime défense mooy aar sa bopp déedéet rasul sallallahu alayhi wasallam benn waay laaj na ko waaw bu waay jógee fële nag di jël sama ne fokk mu jël sama alal nu may def yonent bi ne ko bu ko jox sa alal mu ne waaw bu jógee xeex ak man nag mu ne xeexal ak moom mu ne waaw bu ma ko reyee nag mu ne ko boo ko reyee mu dem sawara bu ma reyee nag bu la reyee nga dem aljanna waaye boobaa lan moo ko waral mooy da ngay défendre sa bopp yonent bi alei salaam ne képp ku xeex ngir défendre alalam ñu rey ko te dafa shahid ku xeex ngir défendre njabootam ñu rey ko te dafa shahid loolee kon doomu aadama wu doo nangu nit jóge fële di la rey waaye it yow da ngay jéem a défendre sa bopp sa kemtalal kattan bu la leeree ne am nga loo ko mën a gaañee ba du dal sa kaw su boobaa ci gaañ gi kese nga war a yem mais bu la leeree ne munuloo défendre sa bopp lu ñu da nga koo rey ab bandi boo xam ne da ngay wax mu rek mu ne bu xëy pistolet yow yaa ngi pistolet da ngay dóor da nga koy dóor bal parce que boo ko dóorul bal mu dóor la bal kon yow rey ga nga koy rey du doon rey jublu rey ko waaye yaa ngi ko rey ngir jublu défendre sa bopp dans toutes les lois du monde boo demee dañuy teqale entre kii rey ak kii défendre boppam muy légitime défense loolu nag bokkul ak jullit boo xam ne daa am ak problème mbokk jullitam kii jóge intention pour rey ko kii it jël intention pour rey ko ñooñu la yonent bi alayhi salaam la wax ne ñaari jullit heure buñ dajee seeni gànnaay fal qaatil wal maqtul fil naar su boobaa ñoom ñaar ñëpp safara lañ jëm saxaaba yi na ko kii ñu rey kii kii rey moom xam nañ ay mbiram waaye maa baalul maqtul ki ñu rey moom lu tax muy dem sawara yonent bi ne kaana xarisan ala qatli axi moom it daa xiiroon jóg pour rey mbokkam looloo tax yàlla boo leen sawara amma bu doon te ne ne fam toog la toog deful benn effort jubluwul bëggul rey mbokkam kee daal moo ñëw bëgg koo faagaagal muy défendre boppam ba far ko rey loolee moom dara nekku ci moo tax waa ji na ko du ma tàllal sama loxo mukk jublu rey la waaye mbokk gis nañu nam ko ca tegal mooy dama bëgg nga yóbbaale sama bàkkaar ak sa bàkkaar sawara loolu la ko borom xam-xam yi di firi firiwul ne ki ñu rey yowmal qiyaama mboole mi bakkaaram dañ koy sëf ka ko rey déedéet waaye bakkaaru rey gi nga ma rey ak bakkaar yi nga yoroon loolu ngay boole léegi nag mu des waa ji nga xam ne dañ koo rey ca tooñ ko kooku la shakka ne yowmal qiyaama dana am àq bu rëy buy jóge ci ka ko rey ñu jël ko ci ay tuyaabaam jox ko ko wala bu amul tuyaaba ju tolloog la yàlla tëral ci ko rey nit moom ñu jël ay bakkaaram jox ko ko ca loolee day moom mën na koo tabal ajjana waaye nekkul lu automatique ndax moom ci boppam mënoon na fekke moom it rey na nit bal rey na ay nit sax ñu da koo rey kon kenn du wax ne dañuy jël mboolem bakkaaram suuf ko ki ko rey al muhim daal képp ku ñu rey la chaque ne ca tooñ la am na àq bu rëy boo xam ne waajo yoroon na la ko ka nga xamee ni it mooy ka rey moom it mi ngi nekk ci danger boo xam ne bu rëy rëy la te loolu dañ ko jàng ca ay yi nekk ci kanam mu ne ko loolu de boo ko defee ngir yow nga bokk ci ñu ñi sawara na am bokk jullit képp ko rey nit jullit ca tey ko safara nga jëm lu dul mbaaxug yàlla dabantal la yàlla wërsëgal lu tub gu sell waxoon nañ ci li yaatu bi ñuy jàng ci suratu nisa la nga xamee ne mooy man qatala muminan mutaammidan waxoon it ixtilaaf yi ci borom xam-xam yi wax ci ndax julit bu rey julit tey ko kooku am na ak tuub ak amul ak tuub waaye almuhim pour tënk ko dañuy wax ne daal su dee yàlla wërsëgal na ko ak tuub te loolu léeg-léeg lu jafe lay doon su boobaa yàlla day mën na koo musal ci sawara bu ko yàlla wërsëgalul ak tuub laa shakk ne sawara may wàccuwaayam ndax bu demee dana fa sax ba faw laa shakk ne lenn rek ay saxal doomu aadama sawara ba faw mooy shirku billah bu dul loolu yàlla mën na bàyyi ab jaamam sawara cent ans mille ans la ko soob mi ngi noonu lii mooy payu nag képp koo xam ne dafa tooñ suñu borom nee na waaraate gi yépp ñu waar ko taxu koo dellu gannaaw te it mbokk doomu aadama yi yemuñu am na ñoo xam ni soo leen waxee ittaqillah waar leen ñu dellu gannaaw waaye suñu borom nee na am na ci ay jaamam yoo xam ni soo leen waxee ittaqillah aqazatuhul izza min al ism keroog ba ñuy gënee féttéerlu mooy ba nga leen di ñaax dang naan leen ragal leen yàlla malgré discours bi rakk ji wax yépp teewul dañoo gis ne suñu borom nee na noonu la ko coobareloo bakkanam waxul sax seytaane mooy bakkanam te it bokk suñu borom nee na inna nafsa la amaaratun bi suu bakkan day day xiirtal nit ki ci lu bon bakkanam taaral ko mu ni kii il faut ma rey ko kii il faut ma rey ko te léeg-léeg nga gis ko ay nit ay xale yi ay mbokk ñoo xam ne bokk ndey ak baay am problème rek ci ab tool wala ci alal wala ci nangam ku nekk ne sa morom kii kii dinaa ko rey kii il faut ma rey ko borom bi subhanahu wa taala nee na noonu la jógee rey ko ba daloon ci téere bani israil yi nee nañ bi mu koy rey da koo bett li nga noonu bi mu koy rey da koo bett ndax waa ji gis nañu ba mu koy wax ca kaw naan ko du ma jóg mukk rey la ngir rey la damaa ragal yàlla loolu mooy firi ne man kat man naa laa rey waaye ragal naa yàlla ci rey la ñu ne daa bàyyi ba fekk ko muy nelaw mu jël benn roche bu rëy xeer bu rëy dóor ko ci bopp bi ñu ne noonu la ko reyee naka mu ko rey rek suñu borom nee na noonu la xëya doon ko perte ca la chaque ne la mu ko jënde jaru ko waaye it mbokk ngalawaay ñuy moytu fitne jigéen ci góor yonente bi alei salaam daana wax ni bàyyi lu ma góor ñi fitna bu gën a màgg jigéen ñi aka bari ay góor yoo xam ne jigéen ñañ bëgg ñoo yàq seen diini bal ñoo yàq seen adduna su ko defee loolu itamit ku nekk ci ñoom war caa teey ñu ngi noonu donte ne ni léeg-léeg muy amit jigéen ñu góor yàqal seen adduna waaye yàlla daa def jigéen mooy kiy attiré góor loolu mi ngi noonu su ko defee kon lam ko jënde jaru ko problème mu jigéen rek jarul mu rey frère am moo tax mu ne xëy na ci ñi perte léegi nag kenn musul dee ndax bay aadama deewagul bay aadama moo leen waxoon pour ngeen xam ku nekk ci dëgg yéen ñaar ku ne na génn sarax kenn musul dee léegi luy pexe rey na ko mi ngi xëy di ko xool rek mi ngi toog xamul nu muy def yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne xalaqa fa hëda moo bind ay jaamam ku nekk mu def ci ñoom xam-xam ba ko neex daal di yónni benn baaxoñ baaxoñ bi ñëw lu bari ci mufassirun dañ naan ñaari baaxoñ ñoo ñëwoon xeex kenn ki daal di rey morom suul ko allahuma bokk na li gën a logique suñu borom dana ab baaxoñ la yónni kon la gën a logique mooy moom dox na bu mujj rek gis na benn baaxoñ bu dee benn baaxoñ naaw fële ñëw daal di ñëw ci wetu baaxoñ bi gas gas gas ba mu xóot mu jël baaxoñ bi dee dugal ci maase la ko bi mu xoolee loolu mu ne bisimilaay jàmm awaay xanaa lu ma lott lott lott lii baaxoñ bi man war naa ko mën a man man tamit mi ngi noonu ca mbokk jullit est-ce que xam ngeen ne suñu borom yàlla lin la def ci muus yi muus ah muus bu bëggee faj aajom day gas la muy def mu def ko pare daal di koy suul ndax nit ñu bëri du ñu roy ci muus ah léeg-léeg nga dox ci mbedd mi gis loo xam ne nii mari day taali ah muus gaa yi ni nga xam ne ak ni mu kii moom day gas ba pare def la ñu def maasa la suul yow it doomu aadama alul teewul nga mel ne muus bi comme waa ji lim ne akalu akalu teexoon ma mel ne ba baaxoñ bi mi ngi noonu mu ne ah waay man te ma mel ne kii. borom bi subhanahu wa taala mbokk bu ñu xoolee baaxoñ boobu am na ay dundin yi ñuy dund yaakaar naa sax sama mbokk bi Serigne Ndiaye moom ko ma si yónnee xafisahullah bu ñu la waxee dund baaxoñ lu yéeme la suñu borom nee na picc yi naaw ci kaw asamaan ak yépp ñoom ñépp umamun amsaalukum ay xeet lañu yu am communauté yu organisé gis nga baaxoñ ñoom dañu am tribunal bu ñuy àttee tey jii bu ñuy gisee benn baaxoñ bu dem njaaloo ak baaxooñu moroomam ëpp ko doole baaxoñ yëpp dañuy koy dàq wër ko ba ndar kepp ko fexe ba taxawloo ko mu taxaw ci suuf ñu daal di koy wër la ñuy wax yàllaa ko xam waaye daal buñ ko wëree wër wër def ba ñu kii ba mu nekk dañuy toog mu rek ñu soxatoo di ko jam di ko jam di ko jam ba mu dee ñu daal di koy jël yóbbu suuf yaa ngi dégg baaxoñ bu ñu gisee kenn ci ñoom ko dem sàcc ci tàggu moroomam yeneen baaxoñ yi dañuy ñëw wër ko suqi laasam yépp bàyyi ko mu toog si place xam ne lu du mën a naaw fa lay nekk di am coono di am coono ba mu amaat ay ay laaf naka noonu it ku ëpp moroomam doole ci ñoom ba rey ko tribunal bi moo dajawaat mi nga noonu juge ko rey ko moom ci boppam loolu mbokk da ngay gis ñi topp baaxu ñu loolu lañ gis ci ñoom te wallahi maa ngi lay seedeel amul benn mbindaafu ne yàlla boo am jotu topp ko comme tubaab bi ñoom ni ñu amee jot mi ngi noonu am jotu topp ko lu dul ngay gis ci moom organisation bu mel noonu gis ngeen borom bi nee na noonu la xëyee doon nag koo xamee ne nii wala boog borom bi ne lu tee moom ma mel na baaxoñ bi muur sama awre doo sama awre frère bi te noonu suñu borom waxe kayfa mbokk naka noonu it la ñuy lislaam jàngale naka la ñuy suturaale néew bu faatu awalan néewu julit kenn du ko suul ak yaramu neen bala ñu ko suul daañ ko suturaal ki xis ba dee yaramam yépp awra la moo tax ngeen gis sapeur pompier wala lu mën a doon ku dee dañuy ñëw rek muur ko parce que nit ki bu deeyee kenn amul droit di xoolaat ci moom dara lu dul ci darura loo xam ne mënta ñàkk imaa ñu koy sang wala yu demee noonu waaye bu dul looloo léppam awra la gannaaw ba dañ koy war a suturaal bu ñu amee tissu baax na bu ñu amul même bu ñu am ñax ñax ki nga xam ne nii mooy Musab ibn Umayr le premier ambassadeur de l'islam Musab ibn Umayr jóge Makka yonent bi namee ko mu dem Madina keroog xare Uhud bokkoon na ci yoroon drapeau ba yàlla dogal mu faatu ñi nga xam ne dañoo faatu fi sabilillah ñu war leen a suul ak seen yére musab benn turki la amoon benn turki mi ngi noonu buñ ko muuree bab bi tànk yi génn buñ wàccee ci tànk yi bopp yi génn yonent bi alayhi salaam ni nañ muur bab bi ba fi turki bi yem ñu jël ay ñax lëmas tànk yi doog koo suul loolu kon bu doon ay carton laak ay mbàjj laak lu mu mën a doon jullit bala ñu ko suul daañ ko jëkk suturaal ba pare gannaaw ba gas suul ko suul boobu it bokk na lu ci borom xam-xam yi wax war naa xóot xóotaay boo xam ni su demee ba yaram bi soppeeku xet bi du génn doo gas ni rek dugal ko déedéet dañ koy gas bu xóot bu ko defee xet bi du génn donte ne ni am na nu muy gën a rafete sax muy li ñu tuddee al lëhd nga xam ne moom lañ defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gas lu xóot gasat beneen tiroir ci côté penk bi rof néew bi doog a jël ay briques kale ko doog a suul almuhim jubluwaay bi ci suul doomu aadama mooy nañ fexe ba xet bi du génn nañ fexe ba ay bàyyi ma duñ ñëw di jot ci moom loolu tax boo demoon ci àll yi nga xam ne ba tey ay tilleki bukki des na fa àll fuute yeeg yooyu bu ñu dugalee néew bi fokk ñu rabb ay salaan ak i ngeer protéger ko léeg-léeg sax ñu jël ay dég teg ci kawam doog koo suul ndax loolu wareef la ci ñun ñu des gannaawam ñu suturaal ko ba awraam boobu dara du ci génn kon noonu la suñu borom bi yàlla subhanahu wa taala waxe ni ngiréem woon ko loolu suñu borom nag daal di ni fa asbaha min an nadimin noonu la xëyee daal di rëccu ca mbokk bàkkane ngi noonu heure bu la man manee ba nga def njaaxum boo cee pare daal di koy rëccu mi ngi noonu am na benn tubaab bu ci bind benn livre xamul sax luy lislaam mais mi ngi ko tuddee les trois minutes du diable ak a bari ñoo xam ne ci trois minutes lañ mer fasa seen jabar ak a bari ñoo xam ne ci trois minutes lañ mel mer rey seen baay wala rey seen frère ak ñu bari ñoo xamee ne nii ci trois minutes lañ jaaxle rek dem xaru yoo xam ne ni ay mbir la yoo xam ne dañ koy def mais bu paree rek nga daal di koy rëccu nga noonu looloo tax ba jullit di war a góorgóorlu di jéem a am maîtrise ci boppam di ñaan yàlla rasul sallallahu alayhi wasallam daana wax ni jàmbaar day du ko dóor mu daanu waaye jàmbaar mooy ki nga xam ne bu meree mën a téye meram bu meree mën a téye meram benn waaye ñëw na ci moom yow mi yàlla yónnee dénk ma lu may dénkoo ci lislaam mën na ko fexeel moytu mer mën na ko waaw doo ma dénk leneen fexeel moytu mer ñetteel bi fexeel moytu mer bari na mbokk julit nit ki def jëf joo xam ne wallahi balaa jant bee soo mu rëcc ko rëcc goo xam ne jégg ña day ci mënu caa dellu gannaaw mi ngi noonu loolee kon moom la yàlla nattoo kooku nga xam ne yonent bi alayhi salaam nee na ba ba àddunay tukki amul fu ñuy reyee nit lu dul ña ña ko rey bakkaar bañ am daañ ko dollil doomu aadama jooju nga xam ne moo reyoon frère bi mi ngi noonu tuddoon qaabil xam naa ne gannaaw iblis xawma ku koy nari ëpp bàkkaar ci jaami yàlla yi yal na yàlla musul ñu lu ñuy yóbbu ci rey nit yal na yàlla subhanahu wa taala laabal ñu lañu yàlla musul ci bépp mer boo xam ne danañu indil fitna adduna wala fitna alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain waaw waaw neex na dañ ñaan léegi dañ ñaan léegi waaw am na benn euh, mbokk boo xam ni euh, dafay laaj waaw euh, damay samay doom de dañoo nekk ay gaucher léegi nag damay sonn pour ci heure bu ñuy lekk gaucher la ñuy lekkee dama ci wax ba sonn léegi naka lay def li ngay def mooy continuer wax mbokk nekk gaucher teewul nga mën a lekk droite tubaab yi nga xam ne ay droitier lañu ñoom gauche la ñuy lekkee ndax ñoom dañoo gis ne ki civilisé mooy lekk gauche kon lekk moom loo nekk nekk gaucher booy lekk jotee droite ngay lekkee commencement ba mën na ñaaw waaye bu yàggee da nga koy daal di tàmm léegi dañuy permettre à l'école xale yi di binde gauche mais ñun jamono yi ñu daan jàng même les gauchers dañ leen daan imposer ñuy binde droite kon ay xale lañu boo leen tàggatee rek incha allah loolu dana doon loo xam ne lu yomb la ci ñoom loolu kon la ñuy wax ci wàllu googe ala kulli xaal comme ni ñu koy doon waxee ci jiitu it dañu xam ne bon l'islam quand même du gërëm coow ci biir jàkka rasulullah sallam daana wax nañ moytu lii xew ci marché yi di xew ci jàkka ji mooy sunu soxna soosu doon wax ku fiiral diine la waaye li ñuy wax rek mooy masjidul haram dafa am attey boppam lu amul fenn ci kaw suuf la preuve kaaba ga rek la ñuy wër ci kaw suuf looloo tax góor ak jigéen di jaxasoo di wër kaaba gi di jaxasoo safa ak marwa ak yu demee noonu waaye boo demoon biir masjidul haram ba tey booy xool télévision bi da ngay gis place bu ñu réserver jigéen ñi nga gis léeg-léeg ay ñuy dugg bu kaaba gi xatul di leen wax ñu dem foofu doonte ne ne léeg-léeg kaaba gi mën naa xat ba loolu dootu mën a nekk da ngay gis ci biir sàppe benn sàppe góor taxaw jigéen taxaw góor taxaw jigéen taxaw ku min masjidul haram xam loolu waaye tey boo demoon jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam góor ak jigéen ñi dañ leen teqale loolu mi ngi noonu loolu moo tax ñun fii bu dee ni julli la rëdd bi kenn du ko fi def ajjuma tarawe kenn du ko fi def mais comme lii toog jàng la góor ñaa ngi wéeru ci miir bi jigéen ñaa ngi wéeru ci miir bi fii ma toog am na góor ñoo xam ne ñu ngi wéeru nii bu ji buñ dindee rëdd bi góor ak jigéen ñi dañuy continuer jàkkaarloo pendant deux heures de temps loolu tax ñu def fi rëdd bi mais bu njàng mi passé rek bu dee julli moom kenn du ko def mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ci wàllu googu naam mbokk yi wu doonte ne naam bismillah naam bu dee mbokkam dafa faatu ca waaw ala kulli xaal bu dee ne génne kanam gi rek loolee nekkul lu xaraam rasul sallallahu alayhi wasallam bi mu faatoo fekk fa abu bakar radiallahu anhu bi mu ñëwee fekk sahaaba yi saalit ku mel ne omar sax da doon wax naan faatuwut waaye bi abu bakar ñëwee ba dugg ci néeg aïcha dafa ñëw muuri kanam gi xool ko fool ko daaju na ko yàlla du dajeel ci yow ñaari dee dee ga nga waroon a dee dee nga ko sama xel ngi delluwaat ci natt bi ñu yàlla nattoo Sénégal mu nga ay yéen ñi jàng xadis ndax lii ci man ngeen ko mës a dégg yàlla du la dajaleel ñaari dee mosu leen dégg loola waaye aha kay dee gi yàlla tuddoon dee nga ko ñun nag Sénégal gëm nañu leen te ba bam dee ñëwaat na Sénégal amat fi njaboot gu dul jeex deewaat encore waaw mi ngi noonu inna lillahi inna ilayhi rajiun ala kulli xaal kon ah waaw kii doomu yàlla la isa doomu yàlla waaw nun dana ni Muhammad leeru yàlla la exact waaw ala kulli xaal waaw waaw mi ngi mi mi mi mi ngi noonu mooy fa yahudi ak nasaraan yi jaaroon fokk jullit yi jaar fa balaa adduna tukki yonent bi alayhi salaam moo ko wax ci ay waxam ju deñ ala kulli xaal kon loolu waa ji nga xam ne sa jege ñaala la sa wëllëre la bi muy faatu gisoo ko ñëw muri kanam gi gis ko loolee nekkul lu ñuy tere lu dul nag mu yegg ci roy ay xeet yu bokkul am na lu ñu yàlla nattoo suñ jamonoy tey muy li ñu tudde levée du corps yéen ñu jàng français ku may firil levée du corps ci wolof kenn ci yéen duma ko firil ndax ñun xamuñu ko levée du corps mooy ñu daje morgue ba góor ak jigéen léeg-léeg rang ñëw ku ñëw ubbi xool ku ñëw ubbi xool góor ak jigéen loolee mbokk da ngay gis ne chrétiens yi ñoo ko indi ci Sénégal ñoo ko indi ci suñu hôpitaux yi mais ñun l'islam xamuñu levée du corps islam li ñu xam nit ki faatu na ma nga morgo ba ñaar ak ñett ñooy dem sango ko génne ko ci mbooloo mi ñu jullee ko suuli ko li leen islam xam mais islam xamul levée du corps loolee kon ñuy bàyyi ci xel bu baax wallahu subhanahu wa taala aalam naam ñu mujj ci bokk bi rek waaw bismillah damay laaj ndax yonent bi moo tax ñu binduñu waaw loolu day lu siiw la ci rajo yeeg télévision yeeg sëriñ seeg ñépp siiw na ci ñoom te ñooñu koy waxit du ñu ñuy condamné lu tax duñ leen condamné mooy dañ koo jàng ci téere te suñ mag ñi dañoo jàpp ne luñ jàng ci téere rek wér na waaye fekk mbir mi demewul noonu dafa am benn xadis boo xam ne dañ ne yonent yàlla aadama bi mu defee njombe gi mu def lekk garab ga ko yàlla lekkaloowul ñu ne dafa ñëw ci yàlla ne ko yàlla baal ma ci barke muhammad sunu borom ne ko waaw foo xamee muhammad mu ne damaa gis miiri àjjana yépp ñu bind ci laa ilaha illallah muhammad rasulullah ma xam ne yow ki ngay lënkaleeg saw tur ko màgg la ci yow kon baal baal ma ci barkeem sunu borom ne ko baal naa la bu dul woon ak muhammad du ma la bind loole sunu maam yi nag ci la ñu jël base ba ñoom bind la ñuy bind ba bokk na benn téere boo xam ne bu gàmmo jotee Sénégal fu bëri di ko fa way wa- borom téere ba lam ci bind walaw laa kama xuliqat shamsun wala qamarun wala nujumun wala laxwin wala qalami bu dul woon ak yow yàlla du bind jant weer du bind xatta laxwul mahfuz sax yàlla du ko bind mi ngi noonu waaye mbokk loolu wéerul wéerul ca la yàlla ca texte ba ñuy toppatoo xadis xam nañ ne du xadis yu wér wéerul it ci wax ji ndax daa safaanoog alquran suñu borom moo ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa illa li yabudun yàlla ko waxal boppam bind mën nañu jinn lu dul ñu ñu jaamu ma loolu mooy de un de deux ñoom nee nañ aadama bi mu defee njombe gi def na yàlla baal ma ci barke bu muhammad waaw suñu borom lu mu ñu wax fa talaqa aadama min rabbihi kalimatin fa taaba alayhi kalimat yooyu mooy lan rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakuna min alxaasirin suñu borom yàlla nee na maa jàngal aadama lam wax ba ma baal ko wax ja mooy dama la ko waxal ay yàlla suñu borom ñoo tooñ suñu bopp léegi boo ñu jéggalul yërëm ñu daañ bokk ci ñi perte yàlla jéggal ko yërëm ko ñu ne déedéet daf na ko baal ma ci barke Muhammad loolee mbokk dañuy gis ne ay njuumte la yàlla dañoo bind pour ñu jaamu ko ku ko jaamu àjjanaay sa wàccuwaay ku ko jaamuwul sawaraay sa wàccuwaay yàlla nañu boole ca ña koy jaamu ba tabbi àjjana ñuy boole ci sunu njaboot ak bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain